citoyen laa dirigé mais mm-hmm. Maria man euh, dama di koo xam ne dama yàgg ci terrain bi mm-hmm. maa ngi koy wax di ko waxaat mm-hmm. te comme ni ko ma waxee sànq boo nekkee ci sociale faf nga dugg ci politique ça fait vingt cinq ans ma juddoo Kaolack màggee fa di fa def euh, ay action suma première action coup de cœur pour Kaolack fa laa jóg ba pare ma généraliser ko dans tout le Sénégal parce que ni sénégalais avant tout. dama yàgg ci terrain bi. Mhm. dama yàgg jëflanteeg askan bi mhm. donc man parrainage bi nekkul woon problème ci man. d'accord mhm. bi ñu demee sax ba ne dama am doublon yu bari sama un peu surpris après nga naan daal di toog toppati di naan docteur waa di ma fi ëpp doublon kii de moom du dem di. ba naan c'est une surprise c'est pas une surprise. Mhm. man dama liggéey. Mhm. man suma parrainage bi ñu mel ne dama bi ñu may ne dama am doublon boobu fekk na su ma réserve ëpp na la ma déposé. Mhm. parce que loolu da koy sóoraale booy dem ci parrainage donc euh, c'est pas une surprise pour moi ma jàll parrainage bi te wax naa ko chaque fois ci suma émission yi loolu laa doon wax bu ñu ma laajee parrainage ma ne le parrainage est derrière moi parce que dama ko liggéey nag dama ko liggéey guddeeg bëccëg bi ñu ma signifié doublon bi kenn nelawatul Mhm. mais profité ci occasion bi di félicité suma secrétaire général ak équipe jeunes yi ak PAM yi. Mhm. nga xam ne ils ont travaillé guddeeg bëccëg nelawuñ. Mhm. donc vraiment lii defe naa mérite la waaye du ma taxaw ñu naan c'est une surprise. du ma ko nangu.